jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñu ngi fii aéroport Blaise Diagne daja dajafeeg walla ñu ànd ak kenn koo xamante ni xam ngeen ko muy promoteur Jam Production njiital Jam Production ñu fekk ko fi muy voyager bëggoon na ñoo xam jam ban dëkk nga jëm ak loo fay wuti ñu ngi lay nuyu avant tout. jërëjëf lay di la ziar. Hmm. di la jox sa wàccuwaay. Hmm. di la nuyu bu baax a baax a baax du nuyu ñuy suivre ci wasaare làmb yëpp. Hmm. di nuyu sama xarit papa Gueye ma àndal. Mhm. nuyu sama papa sama xarit Père Ba. Mhm. sama directeur Mansour Ba di nuyu njabootu Père Ba gi yëpp. yëkkati kàddu bu baax. di nuyu njabootu Ba gi mhm. di nuyu njabootu làmb yëpp. waaw li mu waral voyage bi naat du dara. loolu ci lu jëm ci làmb la ndax ci làmb la ñuy yëngatu. kon suñu jógee rek làmb tax ñu jóg jiw. làmb tax nga jóg lan lan cest à dëkk nga jëm. ak jamaïcain période bi ñu ngi nekk ci ci ci màggal Touba mais xam nañ ni période bu jàmp la mm-hmm. li tax nga mën a tukki voyager bëggoon na ñoo xam ban dëkk nga jëm ak lan nga fay wut. waaw jii ñun Suède lañ jëm. Mm-hmm. Stockholm. Mm-hmm. lu tax nag ñuy dem mooy ci làmb moo tax ñuy dem. ndax umpale wu leen at yi ci gannaaw déggoon ngeen ci jam production di wax ci Bal Balla Gaye ak Boy Niang. ci événement yu mag. lu waraloon loolu mooy dañ amoon ay partenaires yu nekkoon bitim réew. yàlla def Covid ñëw. ba kansal liggéey boobu noonu mënul am hmm. bu yàlla defee covid bi jógee fi ñu waroon fa dem bu yàgg waaye xamal ne soçon bu ñu nekkoon moo tax mënu ñoon fi bàyyi suñu combat yi ñu amoon di dem yàlla def bi saison bi tëjee ñu boucler suñu saison war a dem am ay contrat yoo xam ne moom la ñu war a seq ak ñoom mu nekk loo xam ne waxuma la sax ñun waaye làmb mu na ci amee njëriñ hmm. ndax bu ñu demee fi ñu jëm si suwet ñooñu Euh, mu ñooy king offering ñoo koy organiser king offering ci àdduna bi. Hmm. every at at bu nekk dinañ ko organiser réew yëpp ci àdduna di fa daje. Sénégal dañ fay dem sax waaye box fa ñoo fay dem làmb duñ ko fay gis. Hmm. kon na ñoon bu yàlla defee damay kañ nekk ci làmb am ñu ko gis sopp ko mu nekk ak ñoom ay partenaire ay hmm. doomu Gambien ci mel ni Tidiane ñoom Ayman ñoom ñëpp ñu waral a link loolu. dem ba war a def suñu signature contrat. Mm. loolu sant yàlla jëli di sàkku Sénégal yéen ñu ñaanal ñu dem ak jàmm ñoo dem. Mm. dem bi ñaata weer la jam war a def wala ñaata semaine la war a def wala ñaata bis la jam production bi. non weer bëri na deux semaines rek dañuy dem contrat rek moo ñu yóbbu leneen yóbbuwuñu ndax tey jii li ñu am fii dafa riis mm. làmb la ñu nekk am nañ fi lépp lu ñu soxla Sénégal am na lu ñu ko defal tey sunu papa père ba rek namuñu dara waaw mënoon nañu dem nekk xale dem bitim réew waaw suñuy morom ñu koy def di ta coono yu nekk pour dem tey bu ñu mënee ba fu ñu bëgg dem ci àdduna ñu dem fa grâce à Père Ba mhm. dinañu nag sama grâce sama kilifa mhm. xadaaf mhm. waaw nga xam ne ku sonn su ñun la jàppale ñu taxawuñu tey chaque at at bu nekk daf naan ma foo bëgg dem waxal ñu yóbbu la nga dem voyage kon yàlla def na ñun làmb la ñu bëgg suñu papa père ba di ñu si taxaw suñu directeur Mansour ba tey voyage bi yëpp lépp moom la hmm. defuñ si dara ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ñuy PDC jàmbaar production hmm. jàmbaar production nag taxawuñu wax dëgg yàlla hmm. ndax ñun ñoo jiitu loolu suñu diggante ak ñoom dafa yàgg tey papa Gueye mi ma àndal tey suñu génnee sax wax naka suñu noonu dañu dal suñu xaw waroo waxee nii def nga erreur boo génnee sol ñu la waroo ku lay defal loolu ci àdduna defal la dara man père man mooy sama hmm. koy ñaanal yàlla ko yàlla defal ko cëgal sàmm ko sàmm njabootam hmm. sama xarit papa bi ak hmm. ku ne xam na ni euh, jàmbaar production organisé nañ bis bu rëy muy dox ci diggante Papa Sow ak Siteu te yow tamit yaa ngi organisé Boy Faye ak euh, xale bii di Zambala sponsor yooyu mën nañoo xaar ñu gunge leen ci bis yooyu non ñëpp ay ànd ak ñun jiili ñun li ñu dem nii làmb moom tax a jóg hmm. pour jëriñu làmb lu jiili ñëpp ci xat te incha allahu rabbi ci année bi lañ koy commencé feeg euh, mars di nga dégg lu rëy jam hmm. production ànd ak làmb war a dem fële sa Stockholm si Suède organiser ko fa hmm. waaw am na dëkk yu bari ñu war a jaar waaye daal li ñu gën a yëkkati hmm. est-ce que kon lañ jëm Suède bu ñu fa jógee nag am na dëkk yoo xam ne war nañ fa jaar ak suñuy xarit suñuy am di jàmm hmm. loolu insha allahu rabbi bu ñu demee lépp lu fa xewee dinañ si ko kon daanaka li ñu bu ñu déggee wax ji mooy jamaïcain li ko tax a dem intérêt lamb la mooy dem dép euh, décrocher sponsor bu mag indi ko ci réewu Sénégal waaye indi ko ci ci lamb rawatina yow miy xale intérêt làmb la hmm. njëriñu mbëri la hmm. ndax euh, déggoo li ma la wax boo demee si suyat salle bi fa gën a mag ci hmm. côté sportif ñoom ñoo ko moom di organiser loo xam ne boo duggee Google léegi dañ koy gis king of ring adduna bi yëpp a fay dajee tey bu ñu demee ba làmb war ci gis boppam ñu ci war ci ànd ak jamaïcain nekk benn ndaw fii ci réew mi loolu nag wax dëgg yàlla jiri njëriñu làmb la ñu ngi si réew mi yëpp ñu ñaanal ñi ñu dem rak bisimilahi rahmaani rahim ñoo alhamdulilahi rabbil alamin ndax gis nañ ku ci mel ni Eric Fa barki dem jógee na bitim réew ñëw ànd ak promoteur ñu investir lu rëy ci diggante Tapha Tine ak Bombardier hmm. dañ ko xaar si Jamaïcain ngeneen lamb fu mu jaar naa ne instant yi ngi ci yoon mais tënk naa la bu baax a baax a baax lan ngay wax sénégalais yi ak njabootu lamb waaw njabootu lamb di sàkku si ñoom ñaan rek jii di nuyu nag sama grand As Ndour hmm. maa ngi baax a baax a baax borom Kaolack As hmm. Production jàpp na ci conseil yi wax dëgg yàlla xalaat lii yëpp ñu ko mën a def dafa am ñu ñu taxaw hmm. dimbale ñu xam nga yombalal ñu affaire bi hmm. nga xam ne ñoo ci dugal seen loxo yëpp yal na leen yàlla defal jàmm sàmm leen sàmm seen jabar hmm. di nuyu sama jigéen sama xarit Xadijatu saw borom Suisse maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax di nuyu borom Elmor service Mansour ba sama directeur ter ba ak njabootu ter ba gi yëpp di nuyu nag maam Fatou namm naa ko dinaa ko namm loolu jibi waaye àjjuma ju jot moom xam na li ma laan xaar na hmm. xool nu mu ko def rek ba ma mën see jot solo macha allah jërëjëf yoonu jàmm bon voyage Jamaïcain jërëjëf kii jërëjëf